ngeen jot suñu vidéo nag foo wala si biir a jot moo leen vidéo boo a xam li nga xam ne moom la rek. naafila set guddi juróom-ñaareel gi ci weeru koor sopp nañ ko ci julli juróom-benni rakka rakka bu ci nekk mu jàng faatiha benn yoon. jàng juróom-ñaari xul yaa ayyuhal kaafiruun jàng juróom-ñaari xul huwa ahad aay ju ci nekk des na ko ci bindal aw yiw te dana mel ni itam ku saraxe junni diinaar te lu mu ñaan yàlla suñu boroom mu may ko ko te des na ko bindal itam tuyaaba ju toll ne limu bi ci àdduna bi yépp xaraf bu ci nekk des na ko ca tabaxal